nuyoo bi monsieur le ministre le délégué le délégué régional de Dakar monsieur Abdoulaye bi sax maa ngi ci waroon a jiital son excellence le président de la République monsieur Macky Sall di nuyu Amadou Ba notre candidat di nuyu

nga xam ne liggéeyam ak taxawaayam ci Birayoo ñoom Awa Sarr donc vraiment ñun ñaa moom mi ngi fi moom moom defe naa dama koy beral nuyoo spécial parce que lépp lu ma xewle rek su ma ko woowul sax danaa ko gis sax donc loolu vraiment dafa rëy ci man monsieur le ministre lay nuyu di la wax ni waa Grand Yoff nag mënu ma que activité bu ma def tey tey sax activité bi dañoo jël ay échantillon moo tax ñu def mobilisation bu ndaw jël task force jël liggéey jël amazone yi ak quelques jeunes indi mais bu ñu décidé woon def mobilisation dañ laa donc vraiment waa Grand Yoff ñu ma leen fay huit mille cinq cent cinquante parrainage ñu def xam ni cinq mille yëpp Grand Yoff ko jox ñu ñu parrainage ñoo xam ne bokkuñu ci mouvement bi may liggéey activité yi ñuy def bokkuñu même groupe mais jox nañ ma cër boo xam lépp lu may def dañ ciy dugal seen loxo muy liggéey yi jeune grand yoo xam ne responsable politique am na responsable politique yu bëri biir grand yoo indi nañ ma parrainage donc loolu vraiment dama la koy seere di la wax ni waa grand yoo seen taxawaay vraiment mu mënu ma leen a fay donc nag may wax benn doléance rek boo xam ni waa Grand Yoff laa koy waxal surtout jeunes ak femmes yi il faut que gën leen a taxaw parce que tey jii boo xoolee ñoom ñi fi nekk ñëpp bi ñuy dugg ci parti bi bi ñuy door a sos parti bi am na ñoo xam ni ñun bu ñuy depuis 2008 2009 ñu ngi ci parti bi di ko guddeel di ko ko jëkkal lépp lu parti bi xew la dañuy def am na ñoo xam ne boobu ba tey amuñu ci pos amuñu ci liggéey waaye teewul ñu bàyyi boobu ba tey ñu ngi ñafe di nekk sur le terrain donc ñooñu vraiment monsieur le il faut que ñu gën leen a taxaw gën leen a jàppale parce que Grand Yoff dafa doon commune boo xam ne électorat bu am solo bu nga xam ne ni Dakar accord ku ne xam na ni nag son excellence le président Macky Sall def na lu bari Dakar ak Grand Yoff ci bourse sociale yi ak assainissement liggéey bari def na ko biir Grand Yoff waaye bu doolee ñu jël Grand Yoff aussi bëri na ay responsable yoo xam ni war nañ leen yokk doole loolu ñaar mi ànd ak man ku nekk xam na ni ba ba ñu sos parti bi la ñëw te mën naa di grand responsable yi fi nekk yëpp moom rek a fi amagul poste donc moom vraiment ku mu war a jàppale may mën a sow ñuy toog donc ñoom ñoom Jeewo Awa Sarr <laughs> ñoom Khady Cissé Aïda donc vraiment bu ma liwee damay juum donc doléance Grand Yoff yaa ngi noonu donc nag yow ñu ngi lay remercier bu baax a baax monsieur le ministre parce que gis na liggéey bu rëy bi ngay def Dakar tey jii. parrainage bi euh, bi mu waxtaanee suñ biir ñu ma kan ngay jox sa parrainage man leen ci président Macky Sall joxe képp président Macky Sall joxe moom la ñuy jox suñu parrainage boo xoolee ci local bu ñu ñëwee ci commune Grand Yoff président Macky Sall dafa désigné Cheikh Bakhoum ni ko yow yaay candidat Grand Yoff yow lañ jiital xaaruma mu woo man maa ko woo téléphone ni ko dama ñëw bëgg jàppale ñu ànd campagne liggéey bi bi législative yi ñëwee ñëwee mu jiital euh, bi législative yi ñëwee mu jiital maître Ousmane Seye yàlla na yàlla yóbbu moom it mu ànd jàppale ko campagne donc parrainage yow bi mu la jiitalee au niveau de Dakar comme coordinateur régional dama leen di man je suis logique dans ma démarche mënoo jël sam parrainage jox ko keneen ku dul Diouf parce que moom la président Macky Sall joxe donc vraiment monsieur le ministre yow ñuy kontaan ci ñëw bi ñëw parce que tey jii ku ne xam na ni jot amul parrainage yi nga war a nangu bari na waaye bi mu la woowee en moins de vingt quatre heures nga ni ma danaa teew ñëw nangu parrainage yi ñëw waxtaan ak waa Grand Yoff donc loolu vraiment ñun la ciy gërëm di la sant di remercier ñëpp nag ñëpp ñu ànd ak man muy suqali dama naan suqali Grand Yoff sax léeg-léeg suqali Sénégal suqali national. parce que Grand Yoff la doore woon waa Dakar ñëw région yi aussi am na ñu ñëw région de Thiès bu ngeen région de Saint-Louis bu ngeen région de Louga gunge nañu Touba aussi gunge nañu donc loolu lépp rek pour liggéey coalition bi gën a aussi di remercier aussi Amitok l'honorable Amitok vraiment ami euh, honorable ñu lay gërëm bu baax sa taxawaay di la di jeexal nag di remercier ñëpp ñu ma gumi muy Linguère yi di les Linguère de Amadou Ba di sama di jeune staff bi nga xam ni nelawuñu bu dégg bëccëg le doyen daaf jiite ko comme doyen Mbaye Samb ba doole ci ak ñi ànd ak ñëpp di gërëm aussi sam benn frère bi nga xam moom ci diaspora bi la nag muy euh, Babacar Seck moom aussi commencé naa liggéey au niveau de la diaspora donc nag mouvement baa ngi noonu monsieur ministre seen mouvement la ngeen gën ko taxaw gën ci jàpp pour que vraiment élection yi di ñëw ñu mën ko rencontrer dès dès le premier tour maa ngi leen di nuyu bu baax bi yàgg na mais Ibra tu as dû comprendre effectivement que boobu ba am na beaucoup de délégations ñuy xaar présentement d'ailleurs partie de mon ami frère Aliou Sow taw li ma xaar mooy jégalu xaar bu yàgg bi si ñoom aussi mais. li tax ñu teew fi jar na ko réew mi moo tax ñu teew fi Sénégal moo tax ñu teew fi te Sénégal nag ko jaral moo tax ñu war a taxaw pour que le vingt cinq février deux mille vingt quatre notre candidat Amadou Ba ñu mën ko fal dès le premier tour maa ngi nuyu bu baax euh, le doyen Baye Samb yaakaar naa moom nga juree nuyoo bi rek teg ko si loxo Thank you. ndax bu ma la gisee rek sama xel lay sori maa ngi lay réew may mun a ak Nourou moom yaakaar naa quelques jours, la délégation de chefs à Montgomery aussi me déposer des parrainages. Il est sérieux, mais c'est un garçon très bien éduqué. lu mu amul rek lu mu amul rek daf ko wutiwul mais ma wax leen dara mooy ku mën amul ñu jàppale rek moom yéen def beneen doole jàppale ko bu baax li mu def tey dafa rafet Je remercier tout J'ai reçu dans les frontières normales le parrainage de Maïmouna. J'ai reçu à Grayov de manière très orthodoxe le parrainage de Cheikh Aujourd'hui, je reçois le parrainage de Libre parrainage Nourou Niang yi taxaw gëm naa ne parrainage am ñu jot loolu mooy lan mooy ku jaarale sa parrainage feneen jaarale ko yoon bu warul jaar gëw ma ne sax am na jaarale parrainage gëw parce que léegi boo amee benn politique boo jaaree parrainage loolu mu fekk sa affaire bon nag maa ngi leen di mais parrainage am na important fexe vous ba ñuy parrainé au moment du vote. di vot mais gëm naa ne jurom les 5 parrains de grand yor plus les 3 parrains 5 cent cinquante les sur peine par peine, vous bëgg élection yi ñu vote ñëpp pour le camarade au nom du président Macky Sall, au nom du candidat Amadouba, je déclare avoir reçu ce jour 8550 parrains des mains de notre ami et frère président du mouvement